asalaamaaleykum mbokk yi téléspectateurs yi ñuy seetaan ci télévision fitre Médias ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di la ñaanal jàmm di ko ñaanal réew mi di kontaan ci addu ngeen di teewlu ci seen télévision bi nga xam ni moom lañ tuddee seetu askan wi am waxtaan woo xam ne dañ ko war a amal tey jii jëmale ko ci li nga xam mooy Achoura te réew mépp di ci jóg di ci yëngu euh, ñu koy wax tam xarit lëf nag boo ko bëggee xam boo ko bëggee def nan ko waree da nga koy xam xam ba daf ci am solo boo ko xamee ba pare jëfin wa mën a sell bu jëfin wa sellee nekk lu yàlla gërëm ci loolu la ñuy yëngu te loolu la euh, euh, xam ni mooy sunu taxawaay ñu nuyu kilifa diine yi di leen ndokkeel di ndokkeel képp kuy jullit ak képp ku nekk ci réew mi di ñaan yàlla bu mu nekk suñu mujjeelu tamxarit di ñaanal ñëpp di nuyu ñi nga xam ni ñooy kilifa diine yi di leen ñaanal ku ci nekk yàlla wàcc la ca ma xamay mag ñi di ci tiital sëñ Cheikh Ahmed Tidiane al Maktoum xalif général de Tidiane ak sëñ Abdou Aziz Al Amin sëñ mbay Sy Mansour sama sëriñ sëñ Maodo ak njabootu maam Seydi Aj Malik gépp di nuyu sëñ Sidi Maxtaar Mbakke yàlla guddal fanam wéral ko sëñ Bass Abdou Khadre mi jotale baat boobu nga xam ni réew mépp dañ koo kalawtiku ci jàmm muy loo xam ni dafa war a wesaare ci réew mi kilifa diine fu mu mën a nekk ñu nuyu ko sant ko ñaanal ko yàlla fanu gudd ak wér jub ak topp ñeel ñi nga xam ni ñooy mboo mbooloo ma nekk ca ginnaawam mu tette leen ba jëma leen fa nga xam ni foo leen bëgg te mooy teeri ci kanamu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi waxtaanee lu mel nii fokk ma sukkandiku ci ñoo xam ni bu seen kàddu jibee wala ngeen gis seen jëmm di ngeen mën a nangu ni nangul nañ leen macha allah seen xam-xam ci wàll yi nga xam mooy wàllu diine à tout seigneur tubaab moo koy wax ni foo teew am fa kilifa goo xam dafa wàcc. foog nga jox ko wàccuwaayam ki ma toogal mooy oustaz Alioune Sall mooy féete sama ndijoor oustaz Alioune Sall ñëpp xam ko ci taxawaayam ci daara di seetal pénc mi lan la ci diine wax ak lan mooy sikkus pénc mi ñu war ko péncoo waxtaane ko ba lin ci bëggoon ci tedd ngay jikko ñu am ko oustaz Alioune Sall ku ko xam xam xam ci daara Ali Imran Ali Imran bi nga xam ni xam naa ni fii ak may jeexal émission bi naa ci wut dig daje ak moom toog fa waxtaan ci ak moom ndax ku daara ji yitteel la waaye taalibe daara yi bis bu nekk ci rajo yi ñu ko woo di wax aali ki ci des fonctionnement bi ak yooyu ki ci des féete sama càmmoñ mooy Ousmane Ndiaye Ousmane Ndiaye di suñu di doom ci suñu wujur Baye Souleymane Ndiaye di nekk koo xam ni ci kër gëmu yaroo ci te ci ci ci ci suufu euh, sëñ mbay si Abdou ak sëñ Maodo si sëñ mbay si Mansour ñëpp mooy bokk ci xale yi daara ji nga xam ni teel nañ koo fuug mu sàkku ci xam-xam ci dëkki arab yu kawe yi dellusiwaat ci réew mi toog fi ndax këru diine dafay war a am ay ay ay kenu yoo xam ne dañuy tungoom xam-xam boo fa ñëwee xam ni li ñu wut ci daara ji mooy xam-xam bi kon damay bàyyi bala may dugg ci waxtaan wi ma bàyyi sunu sunu sunu oustaz Alioune Sall mu nuyoo. bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli Xaaj Abdul Asiis maa ngi leen nuyu di am mbégte lool ci li nga nu boole ci jataay bi di nuyu Cheikh Ousmane di am mbégte lool ci li nu bokk jataay bi di ñaan sunu borom subhaanahu wa mi nga xam ne dara taxu ko te mën na lépp mu suqali kër gi mbalam ñi fiy liggéey ci ko ba ci suuf ñaan jàmm ci réew mi yi ko wër di ñaan jataay bi ñu fi toog yàlla na nekk loo xam ne day jëriñ ñi ñuy seetaan ba du ñu toog ba waxtaan wi jeex rek ñu jóg faxatu di dem. yàlla bu yàlla def loolu. amiin alhamdulilah. jërëjëf euh, kooku élève euh, xam ngeen ko oustaz Alioune Sall euh, ma jàll ci ki nga xam ne mooy oustaz Alioune Ousmane Ndiaye <coughs> Ousmane maa ngi lay nuyu ma bàyyi nga nuyu téléspectateur ba lu ñuy dugg ci waxtaan bi. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullah. mbooleem koo xam ne yaa ngi seetaan TFM ci réew mi ak bitim réew ñi ngi ci kàddu nuyoo di ci jiital njiitu kër gi ak ñi mu seqal liggéey bi yëpp di nuyu yow Abdoul Aziz mi nga xam ne yaa ñu dalal ci occasion bu am solo bi di la ziyaara di rafetlu itamit sa liggéey ci réew mi ak say kàddu yu rafet ndax yàgg naa la ko wax euh, nit du la déglu mukk ba nga belee sa sentiment wala nga frustré ko ci kàddu loolu mbaaxu yàlla la yàlla si yàlla saxal di nuyu itamit ki nga xamante ni suñu mag la suñu jur la xëy na tey lañu yàlla doole dajale waaye ku ko yàgg a sopp laa ku yàgg am ci moom cofeel laa yàgg naa di toog barab di ko ñaanal te maa ngi koy soog a gisantee moom jëmm bu paasee télé bi alhamdulilah ngir sa xam-xam sa bëgg diine ak sa courage Alioune Sall mi ñu xamoon 95 ba 2015 soppeekuwul loolu nag maa ngi si sant di la si ñaanal yàlla fa tabaarakallah di gërëm Abdoul Aziz mi ñu boole. jërëjëf tabaarakallah jërëjëf mbokk yi tànneef goo gis dafa am lu ko waral moo tax tey ma bëgguñu dugg ci wàllu Achoura. Mm-hmm. dëkk bi nag réew mi àgg nañu fu nga xam ni lépp lu ñu xamul rek buñ ko umpalee rek am lu ñu cay tàbbal. Mm-hmm. loo xam day day dem ba li nga xam ne mooy sunu aada làggal sunu diine léeg-léeg ci yenn yi. Mm-hmm. ba tax na boroom xam-xam yëpp nangu nañu ni. ñun danoo war a mën a xam suñu diine. Mm-hmm. te defe naa ni réew mu mag ñi fi nekk ke yanu woon diine ji fexe woon nañu ba ñanu maaseel jamono ñëpp dégg ko. ñu ko jëfe mm-hmm. moo tax jafe-jafe bariwul woon. Mm-hmm. Euh, Oustaz Alioune pour ñu dugg ci waxtaan wi bala may ñëw ci euh, Ousmane. lan mooy Achoura. Euh, jërëjëf Hadj Abdoul Aziz laltaay bi nga laltaayal waxtaan wi am na solo lool. xanaa <laughs> la yàlla fay. ashura baat bi arab la ashura mooy fukk tëgg nañ ko tëggin woo xam ne lañ ca bëgg wax daal mooy fukkeelu fanu weeru tamxarit wala fukkeelu fanu atum jullit yi bu bees mu doon lu fi yàggoon nag lu jiitu lislaam di ñëw waaye damay wax toujours ne ki yàlla yónnoon ñu muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa saf lool ba lu mu teg rek toog loxo rek xorom sa topp la moo tax bi mu feeñee jamono ba def ci li mu ci def ci Ashura mel ni ci jamonoom la xew mel ni ci jamonoom la xew xam nga loolu yàlla defal na ko suñu maam ju baax maam Cheikh El Hadji Malick fi ne fu ñu ko tudd dañuy defe ne ti Tiwaawan gi moo ko sam ah. te dafa ñëw sanc si defe naa loolu ñun ñëpp nangu naan ko. Ah, waaye fi ne dañuy defe ne yëf yi mooma bi ci tege mooy yu mel noonu nag la yonent bi yàlla daf ko mayoon lu mu dugg rek loolu day saf xorom mu dugg nag ci Ashura ker ba mu ci duggee nag ak tey jii ci la ko ñu li jëlaat nag tegaat ko foo xam ne fii ginnaaw moom dugal na ci loxoom rek ñun tam ñu fab suñu loxo yëpp dugal ci kon Ashura ab bés la boo xam ne mooy fukkeelu fan ci weeru tamxarit mooy fukkeelu fan ci at mu beesu jullit yi mën nañ ne fi nekk am nañ junniy at ak ñeenti téeméer ak fanweer dugg nañ ci juróom-ñaareel bi ba am ci juróom-ñeenti fan ci tey Hadj Abdoul Aziz loolu mooy Ashura kon mën na noo wax ni tey jii bu nu jàppee ni explication bi mën na noo waxante ca lu fan yële ku romb sa moromu jul ñu ko bonane waaw keroog ba ñu ne weer yu feeñ na <laughs> mënoon nañ ku romb sama moromu jul nag wa kullu aamin wa antum bi xayr <laughs> yàlla na ngeen am jàmm nu am ko yàlla na sa at mi daq at mi nga weesu yàlla na nga fi gën a yeewu gën fee baax yàlla na fi say jikko gën a jub naa ak nangam ba kullu amin wa antum bi xayr baatu xayr bi mu ëmb lu lépp tubaab yi ni ñooy wax bonne et heureuse année. boo xam ne janvier ñëw janvier waaw ah jërëjëf bala ma ñëw ci Ousmane dafa am baat boo génne léegi ci biir waxtaan bi. nga ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu dugal rek. lu mu dugal loxoom day mel ni tey la. waaw kon amoon na lu jiitu woon loolu. lan moo jiitu woon Oustaz Alioune. amoon na lu jiitu woon loolu ndax dund na juróom fukki at ak ñett door ñëw ma Madina bi mu ñëwee ma Madina nag la fekk fekk fa ab koor gum gum gisul mun na leen yéen lu tax ngeen di war bés bi gaa ya daje na ko ndaxte da nga cee am victoire. ban victoire ñu ne ko ci la Moussa daaneeloon na loolu la ñuy feete mu tontu leen ne leen ëpp leen ñu sañ-sañ ci Moussa sunu mbokk la sax nag ndax noo bokk nekk ay yonent kon fu ngeen ko wooratee nu woor ko daal ni dama koy woor ne saaba yi ku mën na woor ñu koy def du ko def ba Ramadan ñëw xëy na kor ga peut gën a woyof waaye daanaka bu njëkk farata la woon yahudi nag daal tàmbali naan ko waa yow nit nu muy bañ mbëtt ba noppi di di naan te ñeex ma mu ne luy loolu ñu ne ko yow da bëgg a wuuteeg ñun ci lépp ba noppi bu asura ñëwee ci la doon waxee la baqitu ila qaabilin la asuuman na taas su ma fekkee de woon wuuteeg yéen ndax damay war neufe bi war dixième bi te yéen dixième bi rek ngeen di war yooyu ci la ci la daal ñëw nag wane ne kon lii mooy Ashura xew-xew yi nag mu ngi ci biir bari lool ndax àdduna si bu ñu seetee calendrier bi ciy daw ndekete am nañu daan xew daan tombeek fukkeelu fan boobu nit ñi nag recensé ko mu bari lool di ay xew-xew yoo xam ne tabaaraka wa taala def na ko ci sofe ci ay yonent xeetali leen ci xajali seen njaboot yooyu yëpp doon xew ci Ashura jërëjëf jërëjëf euh, imam ci noonu nga ko indee Euh, Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam fekk ñuy woor laajte lu tax koor gi ñu ni dañuy feete suñu victoire mm-hmm. kon mu mel ni am na ay victoire yu amoon am na lu amoon ba victoire yooyu am mais yan xew-xew la woon oustaz euh, Ousmane ñëw ci yan événement la woon ak ñan la concerné woon bala muy ñëwaat ci ci ci ci ci oustaz Alioune waaw fa tabarakallah xanaa di am mbégte ci Seydina Alioune ubbee mu rafet lool tabarakallah nga jëmale sa laaj ci yan xew-xew la woon xam nga boo xoolee weeru tamxarit bu di muharram dafa nekk weer boo xam ne weer bu mystique la ndax yàlla dara lu hasard amul ci moom lu si nekk dafa am nu ko programme muy tombe olof dafay faral di wax ni tombe moo waral ay gaaf muharram di weeru tamxarit lépp loo xamante ni histoire la buy marqué humanité moo xam crime euh, contre l'humanité la wala acte l'humanité bu l'islam nangu la dafa tombe ci tamxarit mm-hmm. boo commencé ci moowu tamxarit bi nga xam mooy firi weer bi mooy muharram mu ngi tëggoo ci xaa ak raa ak miim mm-hmm. ñetti xaraf yi ci langu arabe dafa mystique ba noppi sensible mm-hmm. nekk loo xam ni lu mu composé wu rek dafay yéem nit bi si njëkk mooy ci weeru muharram muy tamxarit mooy commencement weer mais boo xoolee commencement dund nit ci xaa ak raa ak miim la commencé muy muharram bi mooy ruxum mooy fi ndox mi di fo nekk ci biiru yaay ji pour war faa formé wu doom ji war faa commencé formé wu ba màgg pour jóge foofu doom ji di commencé woo ak miim la kon ndekete commencement weer ci moo bi rek mooy commencement wu nit ci moo bi waaw ci moo bi mhm. yàlla itamit bi mu nekkee yàlla attribution bi mu njëkk a boppam njëkk ko appliquer nga xam ne moo njëkk ci ci attribution ci mission mhm. comme par exemple tey man Ousmane Ndiaye su ma nekkoon chauffeur nekk alkaati yu bëri ay fonction bi ma njëkk a jël yàlla tey fonction bi mu njëkk a jël mooy ar rahma bi ma de muy xaa ak raa ak miim <laughs> hmm? Hmm. boo xoolee li nga xamante ni mooy yàqal doomu aadama ba yàlla teg fa croix ne bu ko jege boo ko jegewul rek mucc mooy xaa ak raa ak mi mooy lu xaraam boo xoolee lie bi njëkk ci lieu yi nga xam ne moom la yàlla njëkk a teral ci kaw suuf wan ne moo gën a tedd ci lieu yi mu mystique lool muy makk xaram lañ ko tudde alxaram xaaraamiim boo xoolee histoire bi njëkk a xew ci yonent yi bi si nekk ci weeru tam xarit lay demee léegi nag am na ay xaddis yoo xamante ni ñëw na ci ne aadama ci la génn àjjana hmm. ci lañ ko wàccee ci suuf yonent yàlla nuux ci la gaalam gi teere hmm. yonent yàlla Muusa ni ko Seydina Alin waxe ci la amee ndam Ibrahima noonu luut ba si xaw mu luut góor jigéen ñi ba leen yàlla di alak ci bisu tam xarit la kon foofu ngay gis ni ndekete weer bi commencé gi mu commencé atu jumbili moom la commencé ci lépp moo tax mu nekk bis bu mystique bépp xew-xew buy marqué doomu aadama dafay moo tax moo tax boo xoolee euh, suñ calendrier ñun xam nga gàddaay gi la da ngay dégg ñun la euh, miir quatre cent nangam ci gàddaay gi mais weeru gàddaay di weeru tamxarit wël moo nekkoon weeru gàddaay mais lan moo tax kon ñu commencé jullit ñi au lieu ñu commencé ko ci weer wi nekkoon weeru gàddaay gi xarit parce que commencement tam xarit dafa mel ni ki ci la nit ki di commencé waat pour duggaat ci beneen àddina bu bees mooy bu aj ñëwee ba ñëpp damal mel ni ku nekkaat yombal xiyaam ca ne leen yàlla binde woon bokk benn sol bokk benn couleur bokk lépp wane ni ñoom ñëpp ñoo bokk même nit parce que tey liir biiru yaayam muy góor muy jigéen ñoom ñëpp ñoo de ñoo nural la ñuy lekke ñoo nural la ñuy fonctionner lépp bu ñu génnee ci la wute hmm. léegi nag bu ñu génnee na war a wute commencement wute boobu mooy weeru tamxarit ndax bu ñu duggee màkk ñëppay nuroo yére ñëppay nangam bu aj gi jeexee nag ci la ñuy wuute bi di commencé waat ñu jël nag bu aj gi jeexee Seydina Omar nañ commencé fii nag suñu at ndax dafa mel ni ki dañoo génnaat yombal xiyaam duggaat ci àdduna euh, sëñ bi defe naa ni Ousmane indi na mm-hmm. euh, euh, côté bu am solo. ci développement bi mu wax. mu mel nii dafa am yoo xam ni. dafa mel dañuy recomm diine. yoo xam ni ci loolu la toll. ci la bokk. ak yeneen yu ci xew. kan yi nga xam ni diine. daf ci am daf ci am victoire. ñaat nga ma ci def parce que dama bëgg. comme dugg nañ ci at mi. ñu xool lan moo nu war ci at mi. jërëjëf euh, Hadj Ousmane junj na ci lu am am solo. loo xam ne dana joxe départ bu mag bopp danañ ci am baat geneen déggin. woo xam ne ndekete yëf yi du du du rek lu ñu rek sànni mu dem. <laughs> dëgg la dégg nañ ci it Omar ibn Khattab radiyallahu taala anhu mi nga xam ne euh, xalaatu date gàddaay gi ci foofu ci moom la jóge danañ xam ne ndekk kii kon du ko ndaw xamaat keneen kan mooy Omar ibn Khattab <laughs> yi ci xew nag xam nga yónent bu yàlla ma su yónni daf la yónni ci koo xam ne. ni ngay toll ci moom bu fekkee dangay nattee natte nattinu nit tolloo ko ci cumikaay boo jëlee bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu jàkkaarloo léegi ñu koy wax yonent yàlla Moussa keroog ba yàlla ne Moussa kaay dem ci firaw na daf na ko firaw na man na ko firaw na menn mu ne ko foofa rey naa fa nit te man la ñuy wër <laughs> ko amee ah, foofa laa la yónni amee ah, yàlla man firaw na ni mu message ni mu ko mane waaw technique de communication ni mu ko mane ak man ni ma ci lotte man nga yónni mu ne ko pourtant yow laay yónni waaw tee ngaa yónni sama frère bi Moussa nga xam ne af saku lisaanam moom bu waxee rek ñu xam tee nga koy yónni yàlla ne ko man yow laay yónni ah léegi na kon kon daal bu yóbbu nga jàpp ci <laughs> waaw nga jàpp ci waaw rabbi <laughs> hmm. donc fi mu tolloon firaw na bu demee ba jàggi ko daane loolu feet gu rëy la war a doon te kar bi mu ñëw këram bi mu ñëw kër kër Firawna di daaneel ci Firawna kar bi muy agsi ci kees lañ ko def def cay laytaay ci kees lañ ko def def cay laytaay mu ñëw kër na jabaru Firawna for ko ñu yar ko li yakkoona lahum aduwa <laughs> ñoo ko for ñoo ko nàmpal ñoo ko yar dugal ko école dafa ko yu bari door ko bàyyi nag mu dem bi mu demee nag ba dil soit soo soo gisee politiciens yi léeg-léeg nga ne tëll ci parti ñu ne la teraanga yim la defal waroo woon def lii mhm. foofu xewoon na fi ah, xewoon na foofu xew na foofu nu fa xewee nu fa xewe ni mu fa xewe mooy dafa ñëw ne yàllaa ma yónni firaw na xalaat ko ne ko alam rabbika fii naa walida yow fii nga nekke bébé xoolal foofu fii nga nekk bébé li ma def ci yow def ko ca sa yaay def ko ca sa pàppa kenn defu ko ci yow muy benn wa faalta faalataka lati faalta sa defaa nga mi ngi fi defoon da koo fàtte donc daal di koy war te ko nga yoo am mana yëmu ca mu ne ko nag reyoon nga fi nit te it loi baa nga doon xaar kon yow rey da ko ca desoon nga yuy fi naan yàlla ma yónni defaral maa ngi ci sa Hadj Abdoul Aziz kooku bu demee ba léegi sax labal na ko ca baaru xaldoom bu fet gu rëy la war a doon. waaw ah, wallaay wallaay. ah <laughs> te ña nga xam ne ñoom la suñu borom waxoon ne. <coughs> wa nuriidu an namunna ala allazina studifu ñi mu doon néewal doole laa bëgg fab teg leen ci kawam gaynde dee ñu noote sell ba. waaw ah, waaw. kon ñooñu ñoom ñoomit it gan feet la war a doon ci ñoom. ka leen daan ka daan rey seen doom yu góor ya di fa bàyyi doom yu jigéen ya ku rafet mu def la jabar ku ñaaw mu def la mbindaan kooka moo dee ci bisub Ashura ñoom ni ñu war a def feetu loolooy feet gi loolooy feet gi waaw euh, euh, bala may ñëw ci eh, li nu war a def ci at mi nuy dugg euh, oustaz dafa yëkkati benn po benn pàcc boo xam ne dama bëgg oustaz daan daf koy Ousmane nga dugal ma ci dafa wax léegi aspect communication mu mel ni diine ask communication bi mhm. dafa war a am nu mu war a mhm. doon wax d'accord na ni kon du ko nekkay wax dëgg la du ko nekkay wax mhm. du ko fu la neexee waxee kon aspect communication bi la bëgg nga defal ma ci jàngat bala may ñëw ci moom parce que lu ci nekk tey dama bëgg ñu ñu ñu faram fàcc ko bala ñuy ñëw nag ci ñun suñu diggante ak diine ak suñu taxawaay ci ci ci bis waaw xam nga aspect communication dafa am solo ci lépp les communication ci ki war a communiquer ak nit ki ñaari phase lay doon mooy jëmm ji taxaw ñu jàkkaarlook moom mhm. ak wax ji muy wax léegi balaa muy wax dañoo war a defar jëmm ji ba pare moo tax yonent bi salaa salaam mi nga xam ne mooy suñu référence ci communication def na 40 ans formation communication mais ci biir 40 ans yi musula wax lu dul dëgg mhm. musula wor musuñu koo dégg dégg ci caaxaan musuñu koo dénk ba mu luubal ko ba ñi mu war a communiquer dem ba jël jëmm ji daf ko tudde ko amin mooy ku wóor mhm. léegi déjà kon yow mi def communication war nga am mën a am benn benn benn benn jëm jëmm joo xam ne boo taxawee ci kanamu nit ki nit ki xelam dal ba pare balaa ngay wax bokkul nag ak li xew léegi li xew léegi da ngay gis koo xam ne paaseem dara baaxu ci ñu makkiyee ko teg ko muy wax ak nit ñi <laughs> <laughs> ah, bu boobaa li ngay wax lu mu leer leer ki jàkkaarloog jëmm ji sib na li nga def ba pare sib na sa jëmm ba pare hmm. moo tax 40 ans yi yàlla defal formation yonent bi sallallahu pour communication mën a jàll la moo tax keroog première communication bi mu njëkk a def dajale journaliste yi dajale organ de presse yi. Mhm. dajale euh, président yëpp première communication bi mu njëkk a def déglu lu mu leen posé question bi mu leen posé. Mhm. su ma leen waxoon ne leen di ngeen perte li ngeen am am na ñu nekk ginnaaw fi ay agresseurs yu fi ñëw ndax di ngeen ma gëm luñ ko tontu ba nga juddoo ba am 40 ans mosuñu laa xamee ci wax lu dul dëgg. kon ndekete kii def communication war na fexe ba nit ñi xam ko ci lu mu wax dëgg la mu doog a indi message am nag daane leen nag yàllaa ma yónni xoola yónent yàlla yuusuf bi mu duggee ci kaso bi mm-hmm. bi ñaari nit ñi géntee ñëw ne ko dañoo gént kii ne ko damaa gént di nal sàngara kii ne ko damaa gént dara di lekk avant mu leen di jox message am communication ba pare dafa gagné seen confiance ci wan leen ma nitu dëgg laa dañu leen tey kat ki leen war a indil añ leen indil añ ñu toog na bi yépp añ ñëwul ñu xam ni kon li mu leen war a wax dëgg la parce que ku la jox ndékki bu la xaarloo añ nga xam hmm. biñ toogee ba xam ni ki war a indi an andiwul na ci leen woo ba mu ñëw ne leen yow di an la rey yow di nga génn ñu daal koy gëm hmm. <laughs> euh, donc fi ma bëggoon nañ indi wax ji mooy hmm. euh, képp koo xam da ngay wax tubaab bi sax wax nañ ko parce que boo jàngee communication dina la wax ni celui qui porte le message doit être quelqu'un de crédible dëgg la crédibilité waaw crédibilité. Mm-hmm. mooy nit ki nan nan lañ ko gisee moom. dëgg la ba bu waxee ñu déglu ko. lu tax tey jii dara am ñu ni bon ku ne mën na koo wax bu la toogee nga wax ko mu ne noonu nan jëli diw wax ko. Mm-hmm. loolu defe naa ni communication tubaab foofu laa bëgg nga dugg fi lu ba ba. boo duggee sax ci wax jooju. Mm-hmm. bi nga xamee ne noonu nu ñëw na ci lislaam ñu war a wut koo xam ne mooy taxaw ci jàkk ne kaay leen ñu julli. nga xam ne kuy moo war tax ne hayya ala salaat kaay leen ñu julli. Hmm. da ngaa def ñu def ne jana rek demal ko demal ko kenn koo xam ne yàlla jaral na ko ñu fanaanal teg ko ci naaj wi teg aw xeer ci dënn bi naan ko weddi ko mu naan ahadun ahad kooku la yonent bi tànn ne ko demal di woon bi pour ñuy julli si mooy boroom gëm-gëm waaw borom gëm-gëm nga xam ne bu ne bilaal bu ne allahu akbar lu lu waay jàppoon bay ko ñëwoon ca tool yi teg seen i gopp ñëwoon ca wàññi teg seen i teg seeni i cin lu waay jàppoon rek bàyyi ko bilaal daana jékk ba onze rek ñu ne ko bilaal noddal julli xewut dara xewut waaye dañoo bëgg a woote rek ñu ne ko bilaal noddal bu ñu allahu akbar rek jàkk ji fees dell ñu leen di wax la ñu bëgg ko <laughs> kon loolu mu wax noonu lu am solo la mm-hmm. muy communication yooyu donc firaw na loolu la ko yàlla mayoon yonent yàlla Moussa yàlla jàppale ko nag ci loolu pour waa ji bu communiqué ak moom mu mën koo tontu foofu mooy bam ne ko rabbi israh li sadri mhm. man de am na jumtukaay bu ma soxla ci wàllu communication mooy dënn bu yaatu nga su nga xoon ba daal ñu ne ma waxoo fi dara ma mën a continuer <laughs> moo tax keroog ba ñuy wax ba ñuy wax ñoom ñaar mu ne ko yàllaa ma yónni néewu ko luy def néewu ko kuy yàlla daf ne ko luy yàlla xam nga kuy yàlla dafa mel ni kon nangu na ne mu ngi fi waaye bu ne ko luy yàlla mooy dàqaal na ne ko fi sax na far laaj na explication très bien léegi nag loolu waroon naa mën a merloo Moussa waaye mu mu bàyyi ko fi mu ko jàpp rek daal di ko cay tegaat ne ko mooy ki nga xam ne nu waay mel moo la ko melal. Hmm. xam kon moom it sànni na koo xeer nu waay mel moo la ko melal. kon ni nga ni nga mel ki la tax nga mel ni moom la. moom moom ba communication bi jeex donc loolu lu am am solo la. lu am solo la waaw lu am am solo la. ci lay ñëw euh, dinaa ñëw léegi ci mais dafa am fu ma bëgg ñëw booy sóobu ci at. Mhm. ci borom xel. bu nu nangoon ni am nga xel c'est-à-dire di jëfandikoo sa xel ci looy def. laaj nga jàngat sa bopp. dëgg la di tubaab di wax introspection. jàngat sa bopp. ban jàngat la jullit war a mën a jàng. ci li génn dama lay wax de. deux fois lay mer. douze mois yi. Hmm. deux fois laa ci mer. lu tax. mooy bu at ñuy jeex ñu nekk ci ay le vingt quatre décembre wala le trente un ma gis kuy faaw kooku jar naa mere. jar naa mere. waaye tam xarit ñu jeexal am at. di dugg ci meneen at dugg ci dugg mel ni Cheikh Ousmane mi wax léegi jenn waaye moom ñoo bëgg koo faye kooku der naa mere jar dëgg la dafa def benn critique waaw kii mooy kan ki dundoon 1436 di dund mil 1437 mooy kan loolu sax mu si na la wax na roq mën a kan waaw roq mën a kan du dëgg mhm. kon loolu lay def mooy taxaw ne man mi may kan ndax man daaw laa gën a baax ci ren wala na ma meloon laa mel wala damaa yées waaw léegi yooyu mooy yóbbu nit ki ci ah kon kat lii jar naa defaraat comme jar naa defaraat nii laa koy defaree ak ñii ma dugg du toll ni at ma day gën at ma leen américains yi xam nga lu ñuy wax dañuy wax ne boo fekkoon kees gii nga dugal ci sa loxo hmm. fukki weer ak ñaar nga génne ko gënu fee xees gënu fee ñuul dara nekku ci nga dugalaat ko ca jar ngaa faji jar ngaa faj <laughs> <laughs> dégg nga dégg nga dégg nga dégg nga sama sama sama ustaas bi li mu indi hmm. introspection jàngat waaw ci man ci man lii ma def lii ma paase lu ci ne lu ci baax waaw lan laa ci war a corriger fi ma toll nii tey lan moo ma war hmm. sëñ Ousmane euh, point la bu am solo bu mu indi hmm. mu mel ni lan la ci jullit ban ban jàngat la ci jullit war a mën na am ba bala ma ñu ci Oustaz Alioune parce que moom fi mu indi léegi débat bi foofu laa bëgg bu ci kanamee ñu dugg fi maag yow ak moom waaw ah. euh, xam nga boo xoolee li naa Alioune wax booy dugg ci at da nga war a réfléchir xalaat li nga passé ak li nga jëm mm-hmm. mais xoolal yonent bi salaa salaam mi nga xamante ni moom mooy suñu roywaay daq jàngale xoola at mi bees mi nan la waxee ni nan lañ ci duggee lan la ci joxe mooy woor woor hmm. maa jour tam xarit loolu la si yonent saa sam digle woor woor mooy doo lekk doo naan doo bëri wax doo bëri taxawaalu hmm. kon déjà dugal na la ci ruq mën akam pour nga mën a réfléchir ndax nit ki su lekkul naanul dina mën a toog di xalaat di xalaat li paase di xalaat nañ lay duggaati hmm. kon ndekete yonent bi salaa salaam mi ngi lay xamal ne la nit ki su dee dund den saa yi da ngay dem jékki-jékki tollu moment boo xam ni ñaar yi la séq muy ak doomu aadama akuk mala yenn saa yi nag dangay ngay mala gi pour mën a dem ak doomu aadama gi moo tax mu woor la nga xëy lekkoo naanoo pour génn ci destin mala bi pour mën a nekkaat nit mën a réfléchir pour dem waaw moo tax boo nekkee fukki weer ak benn nga nekk nit ak mala yenn saa yi mala gi ëpp yenn saa yi nit gi ëpp nga dem ba benn weer boo xam dañ lay defal stage wala formation ne la mala gi nga xool ndax yow war nga mën a dem ndax yow erreur yi yow la wala mala gi la destin animal bi la parce que nit ki su lekkul naanul rek wuute naag bàyyi ma bàyyi ma su xëyee soo lekkul naanum kenn mëntu ko jëriñoo kon toujours nit ki yàlla dafay bëgg yenn saa mu génn ci cadre mala génn ci cadre univers dugg ci cadre nit pour diggante mu boromam Oustaz euh, Alioune dégg nga fii saa waay génn ah, ma bëgg ñëw ci benn contexte parce que lépp na doon koy contextualiser ci ñun fi nu nekk suñu réew euh, Oustaz Alioune réew mi am fu mu nekkoon mm-hmm. ci ceddo mm-hmm. yàlla tàbbal fi ay nitam mm-hmm. ñu fekk fi ceddo yi dem ba indi leen ci li nga xam moom la yàlla bëgg wax ñu ci bari bokk waaw mu mel ni ñoom liggéey ban defoon moo gënoon a metti bii ñu toll léegi la te ñan doon waxal ñoo gënoon a sax ca la dëkkoon ak léegi mag ñooña seen jëfinin ak ñun suñu taxawaay ban comparaison nga may ba ma man cee jàpp loo xam ne mën naa ko jébal téléspectateurs yi. Euh, Hadj Ousmane wax na léegi communication. bu mag ñu amoon télé rajo kon àdduna tukki. kon mu tukki. am de ñoom woon télé amuñu woon rajo. Hmm. benn ñaaral ba daje fekk colonialiste yi. colonialiste yi di fran di ñoom ñuy islamisé su ma jëloon lu mel ni aspect gàmm ci wàllu technique de communication ñu ko Cheikh El Hadj Malick daan defe c'est extraordinaire Hadj Abdoul Aziz Cheikh El Hadj Malick lu mu wax ne jàngalal ma diw mee ci daar ji saxal ma ko hmm. déedéet dalay saxal boppam joxal la aliwa boppam examiner la boppam euh, orienter la boppam barab sàngam mu xam ne yow mi yaa man ci ceddo dara mooy dama ci ceddo yow du la wax dama sa dëkk de déedéet ceddo sàngam barab sàngam yow mi yaa ci man dara demal foofu mu ñu doxalaan ba at mi jeex mu woo leen Tiwaawan am ak ñoom fukk ak fukki fan ak ñaar yoo xam ne fan bu nekk ak la muy wax ak ñoom yewe leen ñu ñibbi mooy technique de communication bi nga xam moom la Maodo dugal. moo tax bi ñu ñëwee ñoom. Uh-huh. fekk ab africain africain boo koy woote li nga koy woo tàmm na ci lu mel ni folklore bul ñëw ne ko léegi def baaxut déedéet da koy indil loo xam ni melut noonu waaye mën na koo indi ndax ay way la ñoom ñëpp moo indi wasaal yan hmm. moo indi Mawlaay salli wasaal moo indi ma waay bu moo indi yoon seen yooyu kon mag ñi foofu lañu fekkoon yëf yi di indi nit ñi ci affaire yi ba ñëw ci Ashura ya ca nekk ci culture yëpp ñu nangu leen ko bàyyi leen ko mais defal leen ko nag ba mu niru diine la nga xam ne moo ciy sunna ñu bàyyi ko ca moom nam meloon mu yem ca képp loolu moo waral ñoom seen seen seen communication gaawoon a jàll man mag nga fi dégg mu fi am téeméeri at menn mag rek wax ma ko mu fi am téeméeri at amul mhm. juróom-benn fukk ak juróom-ñaar fukk ñoom seen yooyu def fi loo xam ne booba ba léegi nag mu ngi ni cëpp di gën di yokk rek at mu jot na loolu lañu xamoon ñoom moo tax bu bu bu tamxarit ñëwee ñu seet ci yu ci wàllu culture ki aada seet la cay wàllu aadaak ak bidda ak ñoom seen yooyu seet la ci wàllu sunna ñu tëral ko daal di daal di jàll. waaw bala may dem ci sëñ Ousmane. foofu laa bëgg ñu indi li nga xam ni ñun dañu suñu aada ak suñu cosaan. waaw xam nga tubaab yi ci seen wàllu njàng. Mm-hmm. na nañu boo bëggee def communication jëmale ko ci aw xeet. Mm-hmm. foog nga jël aada cosaanu xeet wa dëgg la. jàng ko ba xam ko. Mm-hmm. xam nan ngeen la cay fekke ba mën leen indi changement boo xam dinañ ko mën a nangu. mu mel ni ci taajaboon am na nun ko daan defee. dëgg la te démb. Mhm. noo xam ne mag ñi fekkee woon nañ ko. waaye taxul woo nit ñu leen bàyyi leen ko. waaw lan lan ban stratégie la boobu boo ma ko mën a mu ci Ousmane. stratégie boobu mooy taajaboon am yalwaar la yalwaar mu déguisé dégg nga mhm. ba xam ne doo ñëw ne laar bi laaraan kon day nuroog li fi nekkoon ñu daal dem ci saar wu ñu wax wa naj mi. booy jeexal saaru yaa ngi wax afa min haazal hadiisi taajabun ñu teg seen baaraam foofu jël baat ba léegi boo ñëwee ci kër gi nga xek taajabone su fekkee sa bàjjana fi nekk yow yaay dëbbe bu dee bàjjanu sëñ Ousmane sëñ Ousmane dëbbe bu dee sama bàjjan may dëbbe ñu ñëw taxaw ci kër gi def benn géew ñi yor pepp maa nga nele ñee yor mbuusum ceeb mi ñee yor mbuusum xaaj mi ñee yor nangam ma daal ne taajaboon ngeen ne ma àll yi ma ne sama taajjub gii bala ma ko bàyyi wa naj mi jeex wa naj mi jeex mooy dinaa leen tere saar yi ba mu jeex moom lay wundu moom lay wundu kay ma tari leen saar yi ba mu jeex léegi nag su ma tari saar yi ba mu jeex sama bàjjan xam ne kon man ci daara ji tooguma fa dong nag di weex ginnaaw mu jox ma pepp jox ma wóor yenn saa yi mu jox ma as mbëy yenn ah, mbëy wu ndaw yenn saa mu jox ma nangam ak nangam ñëpp ne ah bàjjenu oustaz joxe na nangam léegi su ñëwee sa kër sa bàjjen da koy toppatoo bu fekkee mokkal nga. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ah euh, dafa am loo xam ne oustaz daf ko indi te foofu laa bëggoon waxtaan wi egsi fii mhm. moo di kon du fu la neex dem déedéet dëkk yi ni mu dëkke woon nit ñi dañuy xamante kër goo dugg danga fay fekk sa bopp parce que sa mbokk nga fay fekk sa bàjjan mooy sa baay sa rakki ndey moom nga mën ko fekk ci béréb la muy bëggee ca lam lay sarax ma nga dépendre ca nanga taree te bokk ak say nawle ñëpp tari nga tari ndeysaan te loolu am na solo wax jàngoo wax jàngi noonu waaw kon loolu mooy li nga xam ni ci aspect culturel bi loolu lañ ci mën a indi mhm. mag ñi fekk ko fi mhm. ànd ci ak ñoom ci loolu bala ñuy indi yalwaan laara bi naanaan mm-hmm. ñu ni nun ko indil neneen ba mu wuute waaw ba nu xam ni bii at ba at lay doon te lii bis bu nekk lay doon laara bi naanaan mën naa nekk bis bis bu nekk sëñ Ousmane ci wàllu taxawaayu mag ñi ci seen enseignement sëñ Touba Xaadimu Rasuul mm-hmm. sëñ maam Alaaji Maalik ak mag ñi baax ñi fi nekkoon te ŋànkoon diine ji mm-hmm. seen digganteeg nit ñi ba indi leen ci loolu stratégie yooyu boo ma ci limalee bala may ñëw ci Oustaz Alioune parce que moom it am na lu ma ko bëgg a laaj xam nga mag dañoo jàkkaarloo ak euh, ñetti mbir benn bi tubaab bi benn bi ceddo bi mhm. benn bi gëm-gëmu population yi war nañoo xeex ak tubaab bi mhm. war nañoo xeex ak ceddo gi war nañoo xeex ak gëm-gëmu nit ñi ba xëcc leen mhm. moo tax yenn saa yi dañu tëral loo xamante ni pour tubaab bi la ñu tëral loo xam ne pour ceddo bi la tëral loo xamante ni pour gëm-gëmu nit ki. <laughs> Ousmane Ousmane Ousmane fi nga indi tubaab yi li ñu koy wax sax bëggul. nee na bu cible bi changé. message bi changé. demal Ousmane. léegi ñoom bi ñu ñëwee. Mhm. dañu jël seen tame ñoom mag ñi. nuural ko ci société bi yëkkati. la la wadd soxlawuñ ko la des ci tame bi lañ soxla ñu fexe nag naka lañ koy bokkeek nit ñi. Mhm. léegi bi ñu ñëwee. ñu fexe ba tëral loo xamante ni ci wàllu communication dana jariñ gëm-gëmu nit ki ba mu am leneen lu mu gëmaat li Seydina Alin wax kii dem di taaje boone kuy jàng alquran lay doon su àggee dafay tari saar boo xam ni ci ci saari suuf yi la te saaru suuf yi kuy mokkal alxuraan xam nga ni moo gën a naqaree mokkal te wan naj mi dafa bëri ay aaya ak i duggalante ku ko tari rek ku ko tari ba mu jeex rek jàmbaar nga ku ko rejeté ba pare. Hmm. xamal ni jàmbaar piir nga ku ku am xel nga tey mokkal nga. ñu taamu saar boobu. bu ñu ñëwee ci kër gi xale bi tari ko ba pare ñi xam ni kii ni mu def ba tari wan nañ mu nekkul woon di taxawaalu. Hmm. bu ko defee ñi encouragé ko mu demaat beneen kër ñi encouragé ko su boobaa mu ngi xeex ak ñaar foofu mi ngi xeex ak ceddo gi seen gëm-gëm ndax ceddo gi bu njëkk bu ñu daan fal buur di élire buur bisu tamxarit lañ ko daan élire. Hmm. moo tax am na yu bëri yu xew ci tamxarit yoo xam ne du diine ak ceddo ñu islamisé la. Hmm. parce que bisu tamxarit dafa nekkoon bis bu mystique kuy am nguur ci ngay falu kuy perte ci ngay perte. Hmm. moo tax nag kuy falu ci bisu tamxarit bi ngay jël di si falu. Hmm. waaw tey nit ki war a nekk buur jour bi ñu ko war a élire li ñuy wax passation de service. defar la sa cérémonie ak nangam dañuy bàyyi ba jour tamxarit. bu ko defee ñi gàngewaale ci ka gañe woon gàngewaale ci ka perte pour mën a demaale yafa ceddo yi daan def na di tëgg ka def këllëg def nangam ak i nangam bi mag ñi ñëwee xam ne boo ko jëlee brusquement dana xaw a dafa xaw a leen xaw a frustré mhm. di ko xëcc ndànk par ndànk di jël di jël al xul wala ahad la jox daan defal junni xul xam nga ko def junni xul wala ahad doo tale taxawaala euh, leket bi këll ko nga di ngay jàng alxuraan di nangam pour wane ne la leget bi ngay këll falul nit folliwul nit loolu leen ci jublu ñoom loolu leen ci jublu <laughs> waaw léegi nag ñoom xam nga Euh, dañuy wax ne nit ki ni muy xeexee yow noonu ngay défendre ak moom. Mm-hmm. tey équipe boo dee football ak moom mu ñëw teg attaque dafa bëgg a gagné. yow bu dee niil moo la arrangé défense ngay teg. Mm-hmm. léegi mag ñi nag bi ñu ñëwee dañuy xool ak cedd gi lu cedd gu indi dañuy jël lu nuroog moom noonu na si nit ki. Mm-hmm. bu ñu tegee leget gi pour fal buur bi ñoom ñu teg leget gi pour na yàlla nañ fekk déwén yàlla nangam. ci lañ koy def ci lañ koy def waaw contradiction bi contradiction waaw bu ñu daan fal buur yi dafa am lu ñu daan def tusngal di ko def di xool ci kaw di xool ndax kii nguuram gi ñaata temps a war a diire mhm. soo gisee lu ñuul ñi ni nguur gi du neex soo gisee lu naqar ñi ni nguur gi day neex ñoom ñu jël xale yi di leen tus nga naan Faatumatu bint Rasul àjjana nàngam gisal póotam ma waaw kay ma ngay weer <laughs> waaw yooyu yëpp pour pour xëcc nit ki la ci gëm-gëmam bi parce que parce que boobu bu mag ñi ñëwoon rek ne leen dafa araam ci lislaam lu ku ko def biddaa la nangam ak nangam bu boobaa am na benn message bu ñuy joxee te nit ñi ragal leen ne mm-hmm. ñii dañoo xaw a dañoo xaw a diis daal mm-hmm. lan lañ bëgg finalement dañ leen di def contre dañ leen di contre moo tax boo xoolee pieds yi nga xamante ni sufiyanke yi fa la lislaam jaar moo gën a bëri te jàmm dafay am ci ñi nga xam dañuy ñëw rek ne araam na araam na araam na mm-hmm. waaw tey boo xoolee Arabie Saoudite gi nga gis nga dem nga dem secteur boobu nga dem Liban nga dem ay Yaman dem ay Syrie nga ñëw fii ci Sénégal nga xool ay Algérie ay Maroc ay Mali dangay gis pays yi nga xam te ne suufiyanke ñoo fa ëpp pays yi ñu frontière da gis 100 pour cent jullit mm-hmm. nga dem fi nga xamante ni ay ay soufisme amu fa pays ñu frontière da gis 30 pour cent jullit mm-hmm. lu ko waral parce que gëm-gëm bi leen doon naxanteek ñoom ba dugal leen ci. ah yàlla fay leen. Ah? sunu mag ma ñu ñëw nag parce que man dama bëgg ñu parce que xam nga man bu ma ànd ak yow. Mm-hmm. dama dama dama damay bëgg ñu dugg ci jamono ji fi nu toll mhm. parce que suñu diine mhm. euh, aada dafa mel daf ko làggal mhm. am na taxawaayu kilifa yi am na taxawaayu état am na taxawaayu jamono ji lan moo war a nekk suñu mën a taxawaay bu suñu diine pénc mi mën a jag jikko yi mën a rafet lan moo ci war a nekk suñu taxawaay ba la ñëw ci euh, euh, mooy rek nuunu nag ñi jàngate woon jamono ba waxoon ñu ne politique moo fi am diine aada te aada sax fi yàgg fi ba sax fi sell su ngeen xamul nu ngeen di boole ñetti ñooñu rek aada toujours mooy fël. bis bu ne aadaa génn rek su ngeen xamul nu ngeen ko doxalee. mu mel ni tey jii aada dafa fël. léegi nag kon njàngale mag ni mooy dellu si waat man wax ne aada lii mooy sa cër cër bii diinee ko moom bii nag politique ko moom. ndax politique moom gan la fi aadaa fi jiitu diine tege ci politique ñoo tege ci kaw léegi nag bu ñu xamee kenn ku nekk li mu jël rek sunu aada dinañ ko mën a amaat te saa bu nit ki perte aadaam nga xam ne léegi culture am nekkatu fi mën nga ne nit ki nekkatu fi <laughs> maanaam nit culture mooy tax ñu ne kii diwa waaye bis bu bu bàyyee culture ba bu def ko ci suuf rek nekkatul kooku tey soo seetloo nouvelle ordre mondial bi mu ñëwee di mondialiser yëf yi ba ñëw ci culture xam nga léegi euh, benn benn film rek moo am ci film yi daw ci àdduna sii bi daanaka mais wenn waye fi am léegi mennum pecc fi am wax naa ko démb ci benn benn waxtaan bu njëkk dañ naan dañoo amoon musique traditionnelle waaw bu nit ki jàkkaarlu nit lim koy wax mën na koo dégg jamono ñoom xaar mbay ma jàgg na ma baal <laughs> ah? hmm. jamono ji muy way bi wax àdduna yaa mën a wor xañ nga ma ndey xañ ma bàyyi waaw xoolal wax juré jooju xañ nga ma ndey xañ ma bàyyi soo ma diggee sama doom danga may nax ah wax bu rëy wax bu rëy waaye léegi ñu dem ba loolu ñu ne ko fa ñukk ne ne dañuy dañuy mbalax xaw ma dañuy pàccanga waaw muy musique traditionnelle ñu demam yàgg ñu bàyyi pàccanga ba ne léegi dañuy mbalax dañ ma baal mais damay misaal bi ñu jógee ci dañuy mbalax léegi ñu ay rab amé rab américain yaa ngay rab naa léegi indo <laughs> dañuy dem ba léegi suñu culture mooy mooy way yëkkatee di amul njariñ baaxul lu tax parce que delloo wuñ ko cosaan li amutal message bi mu amoon mag ñi bi ñu ñëwee fekk pénc mi ñëpp di way ñu indi leen way yu daq seen way yi fuuf te am tuyaaba te yëngal xol juñ nga fi léegi Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu dafa ñëw fekk nit ñi naan sama yi mbay gala déggoon nga ko defaa waaw déggoon naa ko sama yi mbay gala moo fi xewal baa si nag ma mala ca la ndongay dale ak bi ci liif ak laam di saxeer magum deel di ci wax ba ci wax ba très bien di wax ba ci wax ba ci bokkul bi ñu ko déggee yónniwul kenn dafa bokk téere ba fekk leen ca sàq ma léegi ñu yimbay gàlla mu yëkkati loxoom ñëpp ne tekk mu ne ah kàddu yii de am na kàddu yu ko gën a jege cant sant yàlla ñépp ne tekk mu ne wax leen yaa rabbi sidni xayraat yi ko doon debe daal di koy jël daal di wutub air daal di wut eerob yaa rabbi zidni xayraati te yaa rabbi zidni xayraati mooy yàlla bi nga ma joxee nag ba noppi maa ngi lay ñaan nga dolli ma leneen xanaa loolu moo gën nga yimbay gala dëgg dëgg dëgg waaw Oustaz defe naa ni euh, fi may ñëw ak yow Ousmane xam naa ni li nu dese parce que gars yi ci régie bi ñu ngi naan ma bu ñu sañoon émission parce que nit ñaa ngi woote mais xam naa damay bañ a ubbi parce que ubbi question yi laaj day indi day indi un peu ñu am retard Ousmane euh, daaraa ngi fi mag ñi bàyyi fi daara euh, ñu nekk ci daara di nab nabi mu mel ni tey jii euh, jikko yi nga xam ne daara bëgg na ko bëgg melal doomu aadama pour mu mën a nekk nit ki yàlla bëgg mooy jullit bi nga xam day jëfandikoo xelam euh, dafa mel ni dafa dafa manqué lan nga foog ni tey jii buñ ko tëraloon mën nañoo indi ci li nga xam ne moom la mag ñi bëggoon te mu dëppale suñu diine te ba parce que pomi ci pénc bi ëpp na ëpp goo xam ne lii di bis bu nu war dañ ko war a xoolaat suñu bopp sax dañ koy foowee. waaw xam nga boo xoolee daara bi ko mag ñi créé dafa mel ni ki benn genre dundin bu bees la ci ci ci ku dee woon xam nga dee ñaar la am na dee boo xam da ngay génn àdduna sa ruux ak sa jëmm yëpp ñu rob la hmm. mais am na dee goo xam nit ki mi ngi dund fekk na moom dee na c'est-à-dire mooy li ko pénc mi soxlaati mënatu ko mooy dee na mooy hmm. amatul njëriñ moo la alquran di junaan awaman kaana maytan fa ahyaynaahu xam nga boo xool dafa ne awaman kaana dafa ne maytan waxul mayitan parce que mayit boo tasjidee yaa gi mooy ku dee ñu war laa suul dëjël la mais maytan nag mooy dee goo xam ne yow nit ñi soxlaatuñ la da ngay këñëng këñëng rek <laughs> waaw kooku nag fa ahyaynaahu mi ngi mel ni oto boo xam ni amul batterie mënatu la daw kooku pollution lay indi ak circulation ak ñàkk espace kooku fa ahyay naahu dañ ko war a fourrière defaraat ko pour mën a circuler <laughs> waaw léegi nag boo xoolee mag ñi aw man maytan fa ahyaynaahu ñoom dañ daan créer daara jël doomu ñi nga xamante ni maytan ñoom société bi soxlaatu leen hmm. amatuñ ci ñoom yaakaar fa ahyaynaahu ñu dugal la ci daara ji éduquer la defar la yar la ba fa nga jóge woon kenn soxlawu la ñu jël la yóbbuwaat la fa ñu lay tiitaroo ma jox la si benn exemple rek pour mu leer hmm. boo xoolee ci mag ñëpp sax euh, mbay doon da na ko yàlla yërëm bi daan woy amiin nee na dafa demoon ba dañ naan daal dañoo mujj daal ñëw ci sëñ baabu ko ne ko daal mi ngi nii daal waaw kenn kenn soxlawu ko waaw daal la ñu nar a ñu ne ko sëñ baabu ko daal mi ngi nii fu ma dem ñu ne ma munta munul nangam munta jàng mécc munta nàngam mhm. mu ne ko tegal ma ko fii ëllëg ñëpp koy tiitaroo mhm. ci koo xamante ni mosoo mokkal liif ak ñun ñëpp xam nañu askan ba mu bokk mbay doon da tey ku ne moom ngay tiitaroo wallaay ndeysaan man am na téere sëñ Babacar yoo xam ne moo ma ko jàngal dem bay taalif ay way dem ba nekk nitu yàlla kooku mooy aw man kaana maytan fa naaw wala ñu jël gumba goo xam ne du dara ñu indil ko alaaji maal mu fexe ba mokkal alxuraan waaw wala moo moo tax boo xoolee mag ñi ñi ñuy jotoon a yar ñëpp mooy ñi nga xam dañoo dem ba société bi rejeté leen kon tey daara bu ne nitu daara mooy ku société bi bëggatul déedéet mm-hmm. ndeysaan waaw tubarkàlla fi mu dugg am na solo foofu rek laa bëgg nga dugg fi euh, xam nga fi mu dugg nii mag ñi dañ ci doon liggéey lool daara yëpp dafa nekkoon jenn daara moo tax pinc mi yëpp nekkoon di jag maa ngi ndokkeel sëñ Bass Abdou Khadre mi nga waxoon sànq waaye di ndokkeel sëñ Cheikh Mbacke bu bu sëñ Aliou dëgg la ci li ñu wax ne màggalug daarul xudóos ren dañuy exposé Cheikh El Hadj Malick Sy ci pénc ma xayaatuhu wa amalu dëgg loolu gis nga dafa am seel ma xasuma sa ñëw njaarim fekk fa Sëriñ Tuubaa ko Mbàkke man de damaa bokk ci ñu bëgg man alxuraan mooy samay tànk mu ne ko dama lay bindal bu leetar loolu moom gisuma ci ku ci suut Alaaji Maalik sama mbokk ma da di ko bindal bu leetar ne ko kaay nga dem bi mu nee jox ko leetar mu ne ko toogal fii ñu fàggul la ko maamu diir mu ne ko dellul mu seet la sag mokkal bi mu ñëwee njaaram sëñ bi seetu mokkalam ne ko ah, man de li ma ci séentu woon lim ci dafa ko ëpp dellul may dellul may la wér da hmm. ba demee mbar fu ñuy tuddee mbar ña sant faal ci tijaan waaw ñooña waaw góor go mooy seen maam xam nga liggéey yooyu mag ñu doon liggéey radiallahu taala anhum bu dellusiwaatee wala ñu yëg ko mbaa ñu xam ko rek li nu topp bàyyi nu lu dul loolu li nu topp daf ñu topp rek noonu mu daal di gëm tubaab bi nekk ay tubaab yu ñuul bu ko defee waa daara raw ñu te duñ nekk tubaab mukk waaw ndax lu log log log rek dana am accent boo xam ne tubaab dina xam ne lu nuyu tubaab. Ah, àggee rek. buñ ci àggee rek. waaw di rulle RN naan Dakar <laughs> ñu rulle rulle rek. am na accent bu bu des boo xam ne. Ah. tubaab dina xam ne ñun lu ñuy tubaab. kon nag nañ jël li ñu am. wuuf ko bokk ko boot ko tiitaroo ko dem ni ñëpp. ñu dem ñëpp mbokku téléspectateurs yi gis ngeen ni waxtu wax dafa gàtt dafa gàtt parce que gars yi <laughs> naan ma tey xam naa ne li ñu bëggoon développé euh, moo tax euh, defe naa euh, sëñ Ousmane am na message yoo war a yu sànni tëje ko ak ñi nga bëgg a nuyu mais message yi bëgg naa ko parce que fi ñu toll ci fi ñu toll ci réew mi dañu àgg ci ay jikko yu yàqu nit ñi di wootee jàmm pour ñu ànd defe naa ni ku ci nekk ci ñun ñii ku toog ci télévision rek war na ci wax ci loolu surtout li nga xam ni victoire la te victoire buñ ko xasee ba feet ginnaaw victoire comme xeex nanu gañe nanu xeex jàmm rek a ca war a topp incha allah incha allah ma bëggoon nga délivrer benn message nuyu ñi ngi ñuy bala ma ñëw ci oustaz mu defal ma honneur u tëjal ma sama waxtaan tey incha allah yàlla baax na waaw fa tabaarakallah xanaa di sant yàlla message bi may joxe moo dina rek ñun ñi nga xamante ni yàlla baaxe nañu ñu am ay mag nañu jëlaat mag ñooñu tegaat leen ci suñu kanam gëm leen ndax nee naa ay lu mel ni bokk xaraam ay islamistes yi ñi koy tuddee seen bopp te duñu di yàq yépp euh, loolu ñun suñu bëggee mucc si mooy nañu fexaat ba am kilifa ku di murit nga am kilifa kuy tiijaan nga am kilifa ku mën a doon nga am kilifa te kilifa yooyu ñu fexe ba ñoŋal leen ba ba bañ leen a diaboliser bañ ku nangu ku leen manqué respect ndax mooy suñu jàmm ma jox la si benn exemple tey boo demee Iran Iran tubaab bi dugg nañ fa ba tonn pour déstabiliser leen mais xam nga leen may sens. Hmm. dañoo am kilifa boo xam mursidoo am bu nee waaw ñëpp ne waaw. Hmm. seen yoo nekku si la si des ñun na Sénégal loolu moo ñu indil jàmm mooy suñu kilifa yi bu ñu waxee ñu ne waaw. Hmm. na ñu fexe na ba bu ñu ñàkk loolu. mooy message mooy message bi. ni mu amee solo ak ñun ko fonke mhm. am ñoo xam ne jàngi na nu ñëw mhm. mel ni kilifa yi fi nekkoon te peegoon diine mu mel ni contre gi dafa dafa dafa gën a dafa bëgg a bari mhm. ban message ñoo ñuy jox message bi ma lay jox mooy bu bu démocratie jógee ci politique ñëw ci diine rek yàqal nu démocratie waaw na toog ca politique bi rek te bay ñëw ci diine ji waaye bu fi ñëw rek yàqal nu mais waral loolu parce daf daf ñuy xam kilif kilifa ndax alxuraan dafa dafa indi suuratu xujuraat la ca nekk lépp mooy nu ñu waxee kilifa nu ñu jàppee kilifa kon kilifa dafa mënul ñàkk suñu cër yi fi ne li ñu bari bari bari dañoo am kilifa waaw dañoo am xol mooy mooy chef bi mais dañoo am biir biir mooy adjoint donc bu cër yi amutoon kilifa fi ne fu ñu jëm ba loxo xëyee nii lay jëm tànk jëm na de waaye bu loxo bëgg a jëm nii day day jël siwaat parce que kilifa gaa nga ko yaa ngi sori <laughs> mu ñëw donc loolu dafa am solo lool ci penc bi euh, juñu nga fi nag léegi ne Ali Amran da nga fa ñëw yàgg sa gaay yi noo ngi leen di séentu. incha allah incha euh, ndax nun tam ñoo ngi fa di nap na bi pour jéem a pour jéem a yar du gone yeeg ñoom seen yooyu moo tax ñuy tudd ay Ali Imran euh, genn ñaan nag am naa goo xam ne gi fu ma fu ma toog bu may bëgg jeexal ma ñaan ko fa ah. ginnaaw bi ñu rafetloo jataay bi ñaan suñu borom mu nangul na ko wax ne lu jub ci wax ji suñu borom la lu ci jubut du mu am nun ñéexa noo doon jéem yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu jërëjëf mbokk yi kooku mooy oustaz Alioune Sall fegoon ak oustaz euh, Ousmane Ndiaye euh, ma doon toog di waxtaan ak yéen di am njaal yu ma yëkkati jëmale ko ci nga xam ni mooy sëñ Maodo si ak njabootu Seydi Hadji ci góor gi Ablaye Mbaye góor gi Ablaye Mbaye mu tuwaawoon nangu loon lool sëñ Abdou Aziz Malick Dabakh nekkoon jagsaaw ku góor gu gu amoon pas-pas la moo tax kilifteef gi ngay wax am solo ak Asetu Kebe euh, bu bàyyi bu bàyyi Lamine Kebe dama fa daan jàng alxuraan mun daan may ndox boo mujjee ñëw léegi léegi mun la kaay fii defal nangam boobu boo naajee ñëw mu dem sa yaay boole la kooku ñu ngi koy jaale Mansour Thiam doomam mm-hmm. ak njaboot gi yëpp ak euh, soxna yëpp di di jaale tamit góor gi Koura Ka doomam euh, euh, Mamadou Sow ak Nogay Ka ñoo ñëpp di ay bokk yoo xam dañ fay dëddoo ñu ñaanal leen yàlla xare leen àjjana yeexenu mbokku téléspectateurs yi télévision Futurs Médias ci Achoura bëggoon indi beneen contexte nu ñuy war a waxtaanee ci wàllu diine ndax du diine rek nit ñi toog ñi jàngul rek mën nañ cee wax waaye indi question yoo xam ni ñi ni am ñi ñi ñuy seetaan dañ ci mën a gis ay réponse mm-hmm. yoo xam ni xëy na moom lañ doon xaar ngeen jéggal nu ci lu xam ni jaarul yoon euh, oustaz Alioune Sall oustaz Ousmane Ndiaye mm-hmm. seen xarit El Hadj Abdou Aziz Fama doon leen ameen émission di leen jox dig daje beneen yoon di wax ñi ngi pare ak équipe bi dem seeti waa Ali Imran incha allah yal na ko yàlla dogal def ci ñu dégg yàlla defal nu barke te lii ñu jublu te assura yàlla liñ ci bëgg yàlla may nu ko def ci suñu réew mi jàmm jàmmal biir ak jàmm biti asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات أعوذ بالله من الشيطان